ay ayca jërë ngeen jëf yenn euh, mbokk internet yu ñuy suivre ka bàyyi xel euh, fii ci solution info solution TV nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen euh, jàmm ju sax dàkk di ko ñaanal nag mboolem internet yi nga xamante ne ni yéen a ngi bàyyi xel l'émission des émissions ñu ciy ànd ak say su nekk Alaaji Sa Ndiogou Meng ma am mbégte nag retrouver waat leen yéen ñi nga xamante ne ni yéen a ñuy bàyyi xel dem nag ba di diwaanu Thiès yi benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm di ko ñaanal nag suñu sëriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoulahat Mbacke yàlla suñ borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram te koy ñaanal mbooleem xalifi ci biir réew mi yépp balaa ñuy door suñu émission comme ni ñu koy defee saay su nekk rek ñuy cof lenn rek ci émission yi ak ay kàddu yoo xam ne yenn nit yi yëkkati nañ ko alaaji Sanjogu Meng ñëw joxe ci xalaatam ñu daal di koy bàyyi mu daal di nuyoog internet yu ñuy bu ko defee rek ñu daal di jublu si waxtaan bi ma di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñi ngi ñuy teewlu nekk ci biir réew ak bitim réew fu waay mën a nekk di am ci ñëpp mbégte ak kontante di wax ni delsi nañ. Euh, ci émission bi nga xamante ni bii moom la wax l'émission des émissions ñu ci nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi ñuy bàyyi xel ak fu mën a ne di fàttali rek di sunu gis-gis ak sunu xalaat la ñuy joxe ci réew mi. Mm. comme ni ñu ci bokkee ñu am sañ-sañu li xew ci pénc mi. ñu mën cee joxe li nga xam ne mooy sunu xalaat jàpp nañ ni nag liñ ciy joxe euh, defara ñu ci taxa ñu koy def waaw que ni euh, njuum te mën na ci am waaye daal nañ na jàpp ni loolu mooy li nga xam ne mooy sunu gis-gis aussi tamit mooy sunu xalaat mm-hmm. waaw ñu jàpp ni daal liñ fiy wax ak nu ko nit mën a déggee kenn la ci sénégalais yi yoo xamante ni mi ngi joxe xalaatam ak gis-gisam ci anam bi mu koy joxe. nuyu nañ la di la ziar di la wax ne la ana waa Nicaragua. <laughs> Eh, alaaji tax nga ba fu ma romb léegi. ñu ne ma noo <laughs> mujjee sa yoon sooy moo ne moo ne moo ne ma ma jigéen dafa demoon ni Koragua <laughs> sooy moo la sànni xeer ah. mbett moom naa moom la voilà. <laughs> ngi noonu ay Aïcha ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, moom euh, son yi bu Diop ak Assane Mesere képp ko xam ne rek yaa ngi fi ñu ànd ak Modou Diouf nag fas yéene waxtaanee tey li nga xamante ne ni euh, moo di maître Adama géey mi nga xamante ne may Maimouna du Faye dalaloon na ko ci ab waxtaan moom nag àdduna ci procès Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko procédure bi ci am ak. ak patam patami bi nga xamante ne nii def nañ ko ci dañu ci ñëw léegi tegal leen élément bi Alaaji daal di ci joxe xalaatam leneen muy Moussa Bokar Thiam moom mi nga xamante ne nii moo yore wàllum télé communication mooy ministre bi moom itam Maimouna Ndour fay dalal na ko mu wax ci li nga xamante ne nii moo dox ci euh, li nga xamante moom la Sabassi fay mu nekk juge fële ci Ziguinchor ak frère bi nga xamante ne nii moom la ñu wax ni moom bokk na ci adjoint au maire yu Ziguinchor Ousmane Sonko. noppi ca ànd ak ki nga xamante ne nii ku ñuy tippee Ablaye Guissé moom itam ñëw na ci problème mu Ousmane Sonko daanaka daal fi mu toll réew mi ku waxul Ousmane ko waxoo ci lenn ak arrestation bi nga xamante ne nii ci lañ ko jàppee yóbbu ko fële ca subi xutaan moom nag indi na ci ay information yoo xamante ne nii ba ñu eh, dalee wax loolu ba tey li ñu ci dégg ci moom jëmee ko ci moom doy na waar lool ñu jeexale ak nijaay yi bu Jóob muy Moustapha Jaxate moom itam àdduwaat na indiwaat yeneen wax yoo xamante ne nii ku ko dégg ku nekk taf sa nopp ko comme ni ma koy waxee saay su ne mag yi ci réew mi war a defar réew mi bu ñuy daal di jàddal ñun gone yi xawma fu ñu jëm dañuy daal di ñëw rek daal di leeral doore ko ak maître Adama Guèye mi nga xamante ni nii àdduna jëm ci mbirum procès boobu nga xamante ne nii moo dox ci eh, Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko problème mu diffamation bi leen boole ñu dem déglu boobu élément da di dellu siwaat ànd ak Modou Diouf. dans les annales de la justice musuma gis procès bu ñu réglé noonu. fast track boobu musul am man de musuma ko gis. ce quarante donc le non respect des délais bi avocat doon invoqué. c'est c'est vérifié contract c'est-à-dire bépp non c'est-à-dire niñ ko niñ ko contracté ni mu man musuma ko gis j'ai quarante et ans de bar am na tamit leneen ci procès boobu d'habitude bu ñu ne procès diffamation procureur day seetaan. citation directe lay doon c'est-à-dire avocat kii plaignant moom mooy def citation directe jël huissier mu yóbbul ki nga xam ne moom moom moom moom moom lay topp ñu indi dossier bi en général bu dee diffamation procureur fa mu toog bu bu ko président bi joxe parole danaan application de la loi. donc du wax bay jël bay def ah, appel application de la loi wala mu ne je rapport encore moins di def appel loolu nag c'est des faits man dugguma deuxième de procédure. qui sont suspects sur la volonté accélérer procédure pour avoir peut-être un résultat rythmé par rapport euh, au, à l'agenda politique loolu loolu mën nañ ko penser de manière raisonnable mais dans le ay Aïcha jërëjëf Modou Alaaji soo déglu li maître Adama Gueye yëkkati nga comparé ko ak yeneen dossiers yi nga xamante ne ni bu ñuy wax euh, par exemple euh, Barthélemy Diaz ak euh, problème yi mu fi amoon ak njaga Diouf nga indi Madiambal Diagne Toliko ni mu yàggee dossier bi nga xamante ne ni ci diggante ñeenti weer ñu bëgg ko daal di jël patam patamee ko àtte ko noo xamante ne ni ñoom avocat yi sax daf leen jaaxal lool ban commentaire nga siy def. waaw xam nga commentaire bi ma ciy def <coughs> euh, mooy ñun hmm. askan wi ñun ñi nga xam ni euh, jànguñu justice hmm. euh, ñun dañ koy jël rek ñu jël ñu linké ñu ci xale ba ak gaynde ga hmm. maanaam xale bi dafa ñëw di loqati bëtu gaynde gi di ci dugal baaraam bi gaynde gu jigéen gi ne gaynde gu góor gi ne ko waa kii moom li mu lay def nii nag donc kii doo dal ci kawam mu ne ko xaw ma moo tax waaye baay bi bi mu nee bërit yem ci yem ci gaynde gi dafa daw mu ne ko kee moo ma xam ñoom euh, maître maam aadama Gueye hmm. ñoo ñu gën a yéemu parce que ñun li xew ci penc mi xamaguñ ko de xamuñu ko de moo tax sax ñuy mën di liggéey di dem di ñëw di wàcc xamuñu li xew maanaam ñun ñooy gone gi maanaam li xew xamuñu ko mais ñoom ñi xaw xam dañuy tiit parce que li ñu jàng la ñuy gis niñ koy fowee comprendre nga te loolu moo tax nga mën a jóge sa kër yor sab saak sañse ba jekk dox ci mbedd mi dem tranquillement mën a delluwaat ci sa kër ci jàmm loolu mooy yoon yoon wi moo lay teg ci yoon nga mën a def li ngay def parce que nit ki lay xool day wax ne ah kii de bu ma dalee ci kawam yoon dana dal ci sama kaw yoon googu nag la la maître Mamadou Gueye di la wan ne la foowee bi fi mu toll maanaam niñ ko fayee ndax benn nit ndax yenn bëgg-bëgg ñu jël yoon di ko salfaañe ba mu am ci moom ak jaaxle mu ne def na ñeent fukki at maanaam expérience bi mu am ci kii bi ñeen fukki at ci baro bi musul gis lu mel nii loolu tiitaange la war indi ci képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi parce que sëñ Cheikh Ahmad Tidiane si dane réew mu justice ne amul nan lañ fa mën a dëkkee réew moo xam ni amul justice nan lañ fa mën a dëkkee parce que warta ne justice dafa war a am ci réew pour nga mën faa ne parce que yii yëpp ay mbir la yoo xamante ay nit dañu xeex ba taxawal ko ñu xajoo ko mu am loo xamante nit ñemewu ko woon léegi nag liñ doon wax ne nit ñemewu ko woon léegi loolu mooy yoon wi mooy règle bi loolu mooy li nga xam ne mooy li garaaw maanaam tey liñ jàppoon ni moo dut yoon tey li ñuy gis ci pénc mi loolooy yoon ñu imposer ñu ko nag par force ku jàpp ni lii ñuy def Ousmane Sonko nga gis ni Sonko dong la yaa ngi nax sa bopp que d'une ñoom itam seetaanuñu parce que boo gisee justice bu nga xamante ne nii euh, doxalul yoon ñoom ñi nga xam ne ñoo yàgg ci métier mi waruñu toog tamit wax ak ñi nga xam ne ñoo jiite actuellement li nga xamante ne nii moo di justice bi. dañu jël ay nit yoo xam ne ñoom ñooy yoonal li am nii parce que li am ni dañu jël ñoo xam ne tamit jàng nañ yoon ñoo xamante ni ci ñoom la ñuy jaarale mbir yi maanaam politique loolu mooy li garaaw ci politicien. Euh, bu fekkente ni dafa topp ay bëgg-bëggam day seet ñoo xam ni mën nañ ko defal bëgg-bëgg yooyu ñooñu ñoo ko koy yoonalal parce que pénc mi ñoom ñoom la ñuy sëlëm mooy ñun ñi nga xam ne xàmmewuñu gaynde gi waaye ñi xam gaynde gi moom danañ jaaxle dinañ ñi ñii lu ñuy def nii comprendre nga loolu mooy li nga xam ni mooy jafe-jafe gi nañ ñaan yàlla rek réew mi Euh, dal ci ay loxo yoo xam ne mën a delluwaat ci li nga xam ne moom la ñuy tuddee siraatal mustaqim mu yoon wuñ jub jërëjëf amin yar bi yàlla nañ ko yàlla suñu borom bi defal defal ko mbooleem jullit ñu ànd ak nag Moussa Bokar Thiam mi nga xamante ne nii ba tey may Maimouna Ndour Faye euh, dalal na ko mu àddu ci euh, frère ki nga xamante ni nii moo di si Faye di liggéey ci mairie bi nga xamante ne ni Ousmane Sonko moo ko jiite ñu dem déglu ko daal di dellu Ousmane Sonko ce sont des hommes politiques son frère est un homme politique membre du conseil municipal di politique biir Ziguinchor bëgg candidat nekk ci liste yi ce son frère ñu bokk ndey ak baay mënul juger affaire bi dossier bi il devait se retirer Ah, ça même qu'on le lui demande parce que c'est ce que prévoit le texte dafa war a désister wu parce que c'est une conscience ah mënu ko mënu ko juger maintenant de l'État soulever cette euh, récusation peut-être que si instant jour boobu la ko xam ci en pleine un peu trop tard mais juge lui-même il commet une une faute très grave en jugeant cette affaire parce que nous avons des exemples nous avons des exemples non mais des exemples Latif Coulibaly pourquoi vous vous taisez ah mais jëlal jëlal jëlal le cas. du juge Ndeye il travaille à non du juge Hippolyte Ndeye moom ak euh, ministre euh, Victorine Ndeye ñu bokk Ndeye ak Baye. bu mu war a jugé dans ce cas dans l'affaire Sonko mu war a jugé. qu'est-ce qu'il a fait. c'est sa responsabilité c'est il s'est retiré. moom la nekk parce que c'est la c'est la cause de conscience. il aurait pu. continuer il s'est retiré sous la pression. mais il aurait pu continuer xam nga. xam nga. Euh, rien ne l'empêchait. man li may wax man xam-xam laay wax man waxuma loo xamante ne pour for wala bañ a for la. li ma gis li ma yàgg a gis dans les jurisprudences en France en ak fii au Sénégal la pratique judiciaire mooy boo amee dossier bu noonu da ngay wu. parce que loolu mooy loolu mooy pour éviter ce qu'on appelle la suspicion légitime suspicion de de l'impartialité de la justice. parce que c'est important justice dafa war a impartial mais boo amee suspicion loolu loolu c'est c'est c'est une jurisprudence qui est établie même avocat yow boo boo défendre sax noo défendre. dossier boo xamante ne yow daf la jege trop wala sa sa clause de conscience may la ko nga nga nga kii ko sauf si on te l'impose. le ministre Malick Sall franchement. jërëjëf Modou euh, Alaaji mi ngi wax euh, ne justice dafa war a impartial euh, sénégalais yi ñenn ñi nag ba léegi nii mënuñu ràññee li ni mel mais ñoom dafa mel ni le fait que juge bi di Sabasy fay àtte dossier bi nii dafa mel ni naqar bu ñu wanaasu la te mënoo guñu koo yàbbi ba tey. waaw xam nga buñ lay wax ne réew mi fu mu toll réew sàngam fu mu toll xoolal ña ko jiite rek euh, fa ñu toll xam nga kii dama ko yërëm. waaw parce que dafa ñëw di weddi lu munta am lu mu fa teg maanaam ñëw di wax rek pour wax xam nga waa yi am xam nga lu ñu àtte ba pare mm-hmm. bokkut ak lu ñuy waaj a àtte lu ñuy waaj a àtte mën nga wax ne. juge sàngam waru ko àtte ndax lii ak lii ak lii mais bu ñu àttee ba pare dangay indi ay fee nga ne li mu àtte waru ko àtte ndax lii ak lii ci àtte bi lii jaarut yoon article sàngam wax na lii lii jaarut yoon article sàngam wax na lii lii lii lii lii mooy li ci jaarut yoon boo doxee loolu ba noppi nag nga ne li tax nag juge bi gëmm ci lii lépp mooy moo diw ak diw dañoo bokk ndey ak baay parce que àtte nañ ba pare foofu loolu nga war a wax mais maanaam gis nga fa mu nekk. fi mu nekk mooy ci lu ñuy waaj a àtte ji nga ne kii waru ko àtte parce que kii wa kii mais waxuñu la ba léegi ne la àtte bi jaarut yoon amul kenn koo xam ne day taxaw ne li ñu àtte koo xam ne xam na da koy teg génneel la ay kii ne la bi jaarut yoon ndax lii ak lii ak lii amul c'est que ñii ñooy ñi nga xam ni euh, maanaam seen bopp képp a leen ñor maanaam justice am ci réew mi ak bañ a am ci réew mi seen yoon newu ci. maanaam lii am justice bi dafa dafa dafa loolu yabaate sax parce que ñoom dañuy nekk ci loo xam ne dañ koy màbb ci jamono jiñ toll nii euh, parce que lii nga xam ne moom la ñuy wax xam nga ndaw si wax na ko ne ko am na ay dossiers yu jiitu bi yoo xamante ne bi gis nañ fi ay lien de parenté yoo xam ni amoon nañ te àtte nañ ko comprendre ko pourtant biñ ko àttee ba pare. avant ñu koy àtte avocat Sonko yi dañ doon wax new kii waru ko àtte ndax lii mais bi ñu ba pare dañ lay waxatuñu loolu mais dañ lay indil façon àtte bi li nga xam ni moom lañ jalgatee yëf yi foofu loolu lañ lay indil mais ñi amuñu fu ñu jalgatee yëf yi bu doon dañu jalgati yëf yi kon mu neex dañuy taxaw ne juge bi dafa jalgati mais kenn du la wax ne juge bi dafa jalgati dañ lay wax ne la juge bi mbokk la ak diw mais waxuñu ci li mu àtte ndax jaar na ci yoon wala jaarut ci yoon foofu la débat bi war a nekk débat bi waratu la ne ci mbokk la débat bi dafa war a nekk ci ndax li mu àtte jaar na yoon wala jaarut yoon xam nga man may wax ne bu fekkante ne dañ la wax ne la ministre nga li njëkk mooy bu fekkente ne da ngay yëngu di wax lépp looy wax rek dafa war a nekk njariñu république parce que tey jii àtte li ci gën a doy mooy ñu ne ñi ngi àtte mbir àtte ko ba noppi askan wa gisuñu dëgg ci li ñu àtte loolu baaxul bu ñu àttee ba pare rek askan wi dañu wara a yëg ni àtte nañ dëgg parce que dëgg googu mooy li nga xamante ni bii mooy mën a tax askan wi di continuer di am kóolute ci justice te justice dafa am solo ci réew mais ñii fi mu toll ñi ngi màbb ndëg li nga xam ne bi mooy ndëgër laayu justice fi mu toll nii ci seeni njariñu bopp seeni intérêt bopp moo tax ñu koy nasaxal ñoom ñooñu doon wax nañu nañu respecté li nga xam ni mooy sunu institution yi mais tey ñoom ñoo taxaw di màbb institution yooyu parce que xam nga lu tax. le président Sall sax bi muy wax euh, fii nii jàkkaarloog sénégalais yi ni bokkul ci élection yi waxoon na dina respecter euh, justice ndogal yi muy teg ak yooyu yëpp may oh. euh, boobu ba tey gis nañ ni ay ñoñam ñoom ñi ngi woy di wax ne justice bi fi nekk mooy li ngay wax tout à que ni seeni bopp lañ koy défendre mais si kanamu askan wi dañuy wax ni loolu moom mooy yoon. loolu mooy li nga xamante ne bii mooy li ne parce que actuellement wax. lenn la jëf leneen la wax ni dinaa respecte institution yeeg dogali justice yi loolu wax la danga ko war a jëf parce que yoon wax na ni képp kuy voté da yor carte d'identité président Macky Sall voté woon na fii te yorutoon carte d'identité fële ca euh, Fatick donc par yenn saay wax lenn la mais aussi tamit jëf leneen la léegi bu la nit ki di wax. Sénégal dañuy tëb tëb rek dégg wax ji ne wax na lii mais da ngay xool ki wax lii lan la fi jëf ak tamit li muy jëf ci kanam lan la nga méngale mbir yi bu ko defee doo réer ci nit ki parce que dina la may nga teey tey bu ma tëbee tëb rek wax ñu ne ah Sandiogou de wax na lii mais sénégalais yi dañuy jiitu ne def na ko au lieu ñu yem ci wax na ko mais dañuy jiitu ne def na ko fekk defagoo da ngaa wax loolu nag mooy erreur boo xamante ne bi dañu ci tàmbal dañu ci yàgg a nekk loolu bokk na ci li tax Abdoulaye di waxoon fi avoué fi publiquement daal di wax wax joo xam ne daal ne promesse électorale mi ngi dagan ca ña ko gëm parce que kiy wax moom day wax rek mais jëf nag leneen la donc nit ñi nañu moytu dégg tëll rek ne damm d' accord jërëjëf euh, yeneen information yu nga xamante ne ni ki ñuy wax Abdoulaye Gisi euh, ci arrestation wu Ousmane Sonko moom nag am na beneen version bu mu undi bu wuteek li askan wi doon gis ci penc mi ñu dem déglu ay kàddoom ñëwaat. passe caméra Ousmane Sonko jour biñ ne lañ ko arrêté vendredi la woon. xam nga yéen ñëpp da ngeen jàpp àjjuma boobu lañ ko jàpp. ñu wane biir këram ne dañoo toj dajji auditeurs yi gémi euh, dañoo ñëw. mais c' est pas vrai. on l'a avant jour boobu lañ ko jàpp. avant jour boobu avant jour boobu lañ ko jàpp. te xam nga lu tax ñu jàpp si affaire terrorisme lañ ko jàppee won ko moom ak chef rebelle ay Qaïda ñi nga xam ne alqaïda ay ak mi ak ñooñu. li ñuy remonté seen waxtaan yëpp boo avocat yëpp nu toog ñu koy déglu ndoo moom mu reconnaître loolu. si la signé ak ak ak gars yi commencé négocier ci la teg. kii boobu ci la ñuy teg scénario boobu ñu ne àjjuma yow àjjuma boobu kan moo gis Ousmane Sonko nga julli ji kan moo ko gis ak waa Pastef nu ñu yàkkam de gis Ousmane Sonko génn dem jàkk leen ma image Ousmane Sonko ci biir jàkk wala mu génn jàkk bi di dox amul ko dañ ko jàpp avant gis nga jàpp avant bi dama la ci jox ay firnde mhm. gis nga bi ñu koy jàpp jour boobu avant vendredi boobu semaine boobu boo xoolee Dakar ñu ngi ko bari xam nga moom këram rek la ñu barricadé woon ñu ngi barricade biir dakaar sax am na yenn secteurs yëpp dañu ko barricade parce que moom ko déglu ko seet dégluloo ko enregistrement yi ba mu signé accord signé maa ko wax Ousmane Sonko dafa signé fu mu nekk nii mu ngi seet aménagement aménagement de penam mu ngi koy seet donc tey décision euh, euh, waa Pastef ci yeewi askan bi li ñu def nii bureau assemblée nationale ñoom seen bopp lépp ñu bàyyi kook Benno Bokk Yaakaar yéen ngeen defee ne loolu loolu mais quand même yéen même boo mais politique am na loo xam ne seetlu ko. mais ce sont des informations mais dama ko xam. parce que xam nga lu tax gis nga le juge là. le juge le juge dont tu parles. c'est très grave qu'on vous dicte mais dama ne la man maa ko wax man Ablaye Guissé maa ko wax. allez te kenn du ko mhm. dindi. Mhm. Ousmane Sonko ñu ngi ko jàpp. Mhm. avant vendredi une semaine avant lañ ko jàpp nel benn. ci terrorisme terrorisme lañ ko jàppee Ousmane Sonko ci terrorisme lañ ko jàppee après avec l'aide avec la complicité moom moo nangu lool de moo ko signé. ñu ne li mu bind ci page Facebook am boobu dama doon dóor benn policier ban policier la dóor kon loolu ban policier la dóor loolu yëpp dañ ko argué dañ ko scénarisé ah comme ñi ci film Aïcha mi ngi noonu alaaji euh, est-ce que tey su fekkoon ci réew mu normal la ñu nekk euh, procureur génn daal di euh, inculper Ousmane Sonko chargé ko daanaka lu toll ci juróom-ñaari mbir Euh, tey jii nii ñu toog benn Abdoulaye gisee euh, taxaw wax ni euh, li procureur bi wax ak li ñu jàppee Ousmane Sonko dafa wute scénario la. xam nga waaw xam nga Abdoulaye Guissé moom it naan teelu waaw dafa bëgg a bokk rek. mais ba tax nga créé. waaw mais Ousmane Sonko liñ ko créé yëpp bari na de. ah créé nañ ko fi ay forces moom moom moom moom moom mi moo ñu leeral nañu ay créé moom dafa ñëw rek ngir bokk ci créé yi <laughs> xam laay gisee. xam laay gisee. ndeysaan dama ko yërëm. Eh, xam nga eh, li tax ma yërëm ko. Mm-hmm. mooy ab laay gisee ndeysaan lii mu wax nii. Mm-hmm. liñ lañ naan waxu ko daanu ci saret évidemment xam nga non seulement c'est que li gën a garaaw mooy Ablaye Guissé moom. Hmm. Euh, li muy wax gëmu ko xam na ni ñi muy waxal gëmuñu ko loolu leer na ko de. mais jubluwaay bi lan la kon nag. waaw xam nga nit boo demee ba mu mën a wax loo gëmut te mu leer na leen ñi nga jàkkaar loolu gëmuñu la jubluwaay bi. Hmm. mooy naa wax lu ne waa ngi ñu penc mi rek pour mu ubbil la ay bunt parce que dafa am ñoo xamante ni. dañu jàpp ni yëpp yi léegi fi mu toll nii raccourci bi gën a gaaw pour tekki mooy waxalal Ousmane Sonko lu ne weng lu ñëpp di joobe bu ko defee loolu moom euh, léegi tey nga bokk ci ñu naan sa ndey liggéey na lii nag buñ ko jël di ko féetale liggéeyu ndey parce que lii moom téléphone la ñu wax. ki ñëw ba waxtu daale ak nee na Ousmane Sonko signé na nee na am na ay ojo yoo xamante ni bi dañ ko dégg man nag dama dama bëggoon mu xam na ne Ousmane Sonko naar la doon làkk ci ojo ya wala waa al ñoo doon wax wolof wala lan lañ doon waxee ci audio ya comme que moom audio yi nga xam ne moom la yor wala moom nañu génneel audio yi nga xam ne moo xam nga am laay gisee maanaam waxut sax waxu euh, ku euh, amam xel waxam yi waaw waxam yii moom xam naa ni moom ñi mu koy waxal sax ñi mu jàpp ni dina leen neex dina leen naqari trop mm. parce que liñ naan euh, noon bu mu moo ma gënal xarit bu tépparñiku mm. loolu mooy li nga xam ne moom la wane fii ko mm. maanaam dafay yóbbu affaire yi ci comédie parce que finalement scénario la de non xam nga moom fi mu ci comédie la ne quoi moom Ablaye Guissé mm. xam nga moom dafay yóbbu mbir yi ci comédie maanaam ñii bu jàppee bëgg nit ñi jàppee mbir mi lu sérieux mu ñëw moom indi ko ci baax fi mu nekk nii maanaam moom mi ngi ci comédie koo xamante ni gi ñi mu koy defal sax Euh, danañ ko ñaawlu danañ ne vraiment euh, ndeysaan waa ji mhm. euh, fi mu génn baaxut moo taxit doo gis kenn koo xam dina ko jéem a appuyer ji ki maanaam moom sorteem yëpp contre lay génn mhm. maanaam moom day ñëw fekk nit ñi di blouse mhm. muy raw tacc maanaam du génn ci mukk fi nga xamante ni bii <laughs> contre temps di ko xaar waaw bu doon day ab fecckat la moom ma xam ne ku mën a génn euh, ci contre temps la moom Ablaye gis mi ngi noonu en tout cas doy na waar de ndax li procureur bi wax ak li ñu dégg ni moom musiba naaru lay la donc euh, dañuy daal di ànd ak nag man moom saay euh, su waxee su ma ko déggee rek sama nopp yi di riir nañu dem ànd ak mudu mu tegal ñu élément boobu yéex nañoo jàpp Sonko gëm ne yéex nañoo dissoudre Pastef waaye combat bi daa am lu des gis nga tey ginnaaw ar euh, Pastef est une entreprise terroriste képp koo xam ne da bokk ci Pastef tey waratoo woon dox ci kaw suuf Sénégal ñoom ñëpp la ñu waroon a jàpp. Mm-hmm. une éradication complète de Pastef bu ko defee dans les cinquante ans ñu amatu lu mel ne lu mel ne ñoom loolu mooy combat bi et moi sur ça que j'invite le président de la République. tous les élus de nañu leen jàpp muy député muy conseil municipal muy conseil départemental. déet waay xaaral ma gale tous les tant ñu nekk ci biir administration bi. léegi bi leen jàpp au nom de quoi la leen. on les rajie parce qu'ils appartiennent à une entreprise terroriste Pastef est une entreprise terroriste waxuma ko justice ko wax. jërëjëf Modou en tout cas lu yàggul dara ñëwoon nañu fii rek ci émission des émissions wax fi kàddu yu nga xam ne yëkkati woon na ko moom Moustapha Diakhaté te mag nag dañuy soxla vraiment muy defar penc waaye moom ak Abdoulaye Guissé mi daanaka li ñu wax sorewul parce que terroriste lañ ñu lañ lañ ñu wax wax na tamit cinquante ans yi ñu jëm. Euh, bëgg nañu daal seen ambition mooy euh, képp ku xam ne Pastef nga bokk genre nit yu mel noonu bañ a amaat ci biim réew alaaji ci ah, mag moom <coughs> moom xamul lii xew suba sax moom Moustapha Diakhaté bay wax ba ñuy wax cinquante ans yi ñu jëm euh, li Sonko def ci réew mi defu ko fi li Sonko liggéeyal réew mi liggéeyalu ko li Sonko jariñ réew mi jariñu ko te moom moom ak Sonko maanaam dunduk Sonko ci réew mi euh, moo ëpp njariñ ak nekkam moom ci réew mi li mu fi def ci ayat hmm. ñaari fanu soo maanaam boo jëlee bi ñu jël bi ñu dàqee waxuma Sonko ba muy liggéey de bi ñu dàqee Sonkook léegi ci impôt domaine diggante bi li Sonko jariñ réew mi moo ëpp moom bi mu tàmbalee ba nëgë ni li mu jariñ réew mi parce que même bu dul dara Sonko taxaw na conscientiser jeunesse bi def ci ñoom ak bëgg réew mi patriotisme nekk ci ñoom sénégalais bi tey mën a taxaw fàtte boppam di dimbali moroomu sénégalais loolu Sonko indi na ko ci réew mi Sonko jàng na ci école yi servir na li nga xamante ni bii mooy réewam 15 ans yoo xam ni di récolter ay impôts di ko dugal ci keesu état te jëlu ci dërëm li Sonko jariñ réew mi moom jariñu ko réew mi tey bu ñëwoon senegal ñaar ñii de koo ci ku la ci gën a jariñ Sénégal ci boppam dana ne ah li Sonko def ci man de genn wàll gi maanaam kaar bi kii defu ko ci man moom mii nag maanaam du ci ñi jariñ réew mi may dafa bokk ci ñi jariñoo réew mi parce que gisuma loo xamante ni bii wax dëgg fa yàlla euh, defal na ko tamit réew te Sonko gis nañ ko loo xamante ni bii luñ mën a teg bët la euh, liggéeyal na réew mi quand même léegi moom Moustapha Diakhaté bu dee réew mu développé la ñuy wax réew mu bëgg a jëm ci kanam yan genre personnage mooy li nga xam ne mooy gën parce que nekkul ni rek ñoo xam ne dañuy toog di wax mais dañuy bëgg ñoo xam ne dañuy jëf lenn rek mooy problème mu Sonko ci réew mi mooy ambition bu ma am yéene goo xam ni am na ko ci réew mi loolu tamit nekkaat leneen sénégalais yu bari nangul ko ak yéeneem loolu de mooy problème mm-hmm. lii mooy jafe-jafe ji nga xam ne moom la Sonko am ci réew mi maanaam taxaw ne man de ku jub laa nit ñi war koo mën a càmbar defe naa ni càmbar nañ ko bu ñu gisoon lu mu sàcc defe naa ni kenn du ko waxati. dama léegi nag Moustapha Diakhaté nag moom problème am jamono ji ñu toll nii moom moo gën a am lu ko metti maanaam Sonko mi ñu tëj moo ko gën a nekk ci aafiya parce que moom la fait que nekk dogalub sunu borom nga ne lii warta ne. waaw loolu. pourquoi ah, loolu moom moom nga laaj loolu yàlla bu ma ko xam bu ma ko xamee damay nekk ak moom même rang yàlla bu ma xam lu tax loolu. en bi mu am ci Sonko ba saa su defee sorti rek ma wax la leen xam nga moom mii euh. awma ci moom benn en jàmm rek laa ko yéene mais nan la nit di mën a am ci nit en loolu yàlla bu ma ko xam boo ko xamee rek ne fa noonu loolu du ma ko xam donc waaw mag mais loolu moom la ko loolu mooy moom la moom ci boppam hmm. ni mu mel moom moo comporté ni nga xam noonu ni mu jàppee noonu kii donc loolu moom mbiram la mais en tout cas li am solo daal mooy euh, fi ñu toll nii ci réew mi yaa ngi dégg bu ñu laajoon waa réew mi wala ñu xool leen ñoom ñaar Moustapha Diakhaté leer na ma ni ay atam war naa doublé boo defu ndànk war naa am ay ati Sonko lu topp xaaj war na ko am kii bu ñu xooloon ku ci nekk ñu càmbar li nga jariñ réew mi Sonko ko ëpp lu mu jariñ réew mi donc loolu wax fa yàlla Euh, kon ñu mel ni sonk Sénégal moom defe naa ne dañuy ñaan yàlla ñu mel ni Sonko bari fi lool bu boobaa léegi tey réew mi dem yoonam yàlla nañu am ay Sonkoy Sonko ci réew mi. mais mu wuteeg bëgg-bëggam yi ñu bàyyi la nga tàggatoo comme waxtu bi euh, xoj nañu. jërëjëf ba léegi incha allah. ñu euh, wax ngeen ak directeur programme bi aja altine lañuy ñuy léegi incha allah l' des émissions bu jàllee tey kon dee leen ñu xaar altine incha allah bu ko defee nga xamante ne bi dinañ mën a dajale émission yi nga xam ni ñi ngi xew ci euh, weekend bi waaw nga xam ni VSD bi comme vendredi samedi dimanche ñu nga xamante ne bi émission yooyu la ñuy jël di ko teg ci pénc mi di ci joxe li nga xam ne mooy sunu gis-gis ak sunu xalaat waaw jërëjëf jërëjëf Mbengue comme euh, internautes yi nag ni ngeen ko déggee rek léegi désormais l' émission des émissions euh, lundi la ñuy koy fas yéene di ko amal incha allahu rabbi di leen di wax ne nag dee leen ñu xaar comme toujours wéy leen euh, di ñuy suivre tey abonné ci suñuy plateforme di jaajëfal bu baax a baax Modou Diouf Abdou topp ak Lay jàlloo di leen gërëm yéen itam ñu ñu doon bàyyi xel bu baax a baax gis nañu commentaire yi jox leen dig daj ji lundi incha allahu rabbi oui.